对。 loolu ne Khadija woo nit ña bu ko def kenn jiitu te it nag ku ñëwee nga ko defee mooy lii ñu wax léegi ne awate bi fi nafs daa nekk loolu la di xel mooy yow daal ñu gàtt bu la yóbbuwaale ko ci la ko def. waaw jotaay bi dama fi woon nii teel xam waaye fii ci jotaay bi am na ku yàlla baax am na ku yàlla baax de nëpp ko nag ci yërëm ci kii bi jëlee yàlla xamal ko jaarale ko fi mu jaarale baayam waaye. gisul loolu moom dara sàmm bakkanam sàmm boppam sàmm bëgg-bëggam sàmm waasam sàmm noonu sàmm gi ci digganteem ak borom moom la lay soxal aja daxay si samba ci muraaxaba na ci la génn lu la bu gisee yàlla gannaaw ba ko taxalee ne ay munaqaba munaqaba rek la def léeg-léeg nit dox sax dox li ko dox rek boo toogee di waxtaan ak moom boo bëgg a lekk xaawam mu daal di ñëw mu ne la waaw sama affaire ba ñëwati na de kalau percaya. percaya. Dengan jalan-jalan kepada Muslim, jangan lakukan dan nafsu. Ini kita lewat di ziarah, di ziarah, Dia ziarah. maire Bachirou ne muy nuyu nag kilifa diine yëpp waaye daal nag waaye fekk dafa ma xool ci am loolu suñ la márùn ní wa pẹ́lá wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ yọ ọ̀la rẹ̀ balaja disikẹ́rẹ́ kuta lẹ́lẹ́ lọ́lọ́ rẹ̀ wọ́n wá ìgbà yìí kó lọ́wọ́ já bisudura kuta jẹ́wọ́rọ̀ máa ń lọ́kọ́ kó wọ́n máa ń lọ yẹ kí n á lé jáwé lẹ́yìn. சமீபத்தில் அக்காமணி dulul la yàlla ñu ne ko nettali sëñ bi wax na ko léegi wa zakkir innama anta wa zakkir lasta alayhi bi musaytir mbokk yi si si bakar bu ñu leen waxaat léegi baal naa nee na ñëpp ñu ngi leen di dokkeel ñaan na guddi tey gii n i tàmbali lii ñu fi n a a n def yoo xam ne nii ñoom saxal nañ fi lii ba mu sax ñuy ñëw ñu topp nag ñun ci seen wati fi mu nekk nii bu ñu mënulee dañuy mel ni ñoom bu ñu saxalee nañu wax ne seen bëgg mooy